asalaamaaleykum wa rahmatullah daleen nag jàmm ci seen émission bi di actu réew mi euh, comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ñuy waxtaanee wàllu actualité bi nga xamante ni moom gën a fës ci biir réew mi waaye fi nga xamante ni moom mooy bitim réew dans euh, toutes ses formes donc euh, tey nag ñu ñëwaat tey émission bi ngi andi leen ay sujets yu am importance di ci ànd ki nga xamante ni moom mooy sama chroniqueur di Jean Fall tey nag li nga xamante ne dinañ ko waxtaanee mooy li nga xamante ni moom mooy coow li duppee ci rupture bi am ci ñi nga xamante bëggoon def coalition muy ci position bi waaye tamit dinañ wax ci li nga xamante ni mooy prix euh, bu denrées wax tamit ci li nga xamante ni moom mooy football bi waaye tamit dinañ ñëw tuuti ci pandaw ci ci émission bi daal di wax ci li nga xamante ni moo euh, nga xam ne moo am ci valeur ci yenn ndaw yi nga xamante ni ay repère ba léegi ngay yi nga xamante ni ngi koy gis euh, rawatina fa nga xamante ni mooy Touba benn ndaw soo xamante ni dafa daal di faat ay waajuram loolu lépp bokk na tey ci li nga xamante ni lu ñu war a waxtaanee seen émission actu réew mi waaye comme ni ñu ko defee saa su nekk rek damay bàyyi sama chroniqueur bu ñaawul bi euh, monsieur Jean Fall mu daal di nuyu ak ñi nga xamante ni ñooñu seetaan saa su nekk monsieur Fall ñu ngi leen nuyu baax. Mor maa ngi leen di fay di dellu rek di rafetlu également émission bi ak waxtu bi nga xamee ne ci la ñu tàmm di ko def. Mm-hmm. di ñaan yàlla nag yàlla defal ñu ci ndam te itam nag euh, ñu yàgg fi di gindi askan bi ci li nga xamee ne moo di fait ak euh, fait divers yi nga xamee ne ñoom ñooy lëmbe askan bi. Ah, donc euh, comme nu ñu koy defee rek laataa ñoo dugg ci euh, biir waxtaan bi dañuy ubbee ak la une de Rewmi Quotidien euh, inondation un nouveau plan décennal 2023 2033 Macky fixe de nouvelles règles aux ministre toujours à la une de Rewmi Quotidien coalition PDS PASTEF PUR Taxawu que reste-t-il du protocole de Massalikul Jinaan toujours dans ce même journal Covid-19 au Sénégal une pandémie à mille milliards à camp pénal du Yamba dans euh, une euh, miche euh, de pain. Toujours dans Rewmi Quotidien côté sport, élimination à Coupe du Monde 2022. Le Sénégal débute par une victoire. Afrobasket masculin, les Lions filent en demi-finale et prison la surprise de Benjamin Mendy loolu moo nekk li nga xamante ni moo gën a fës ci Rewmi Quotidien bu loolu la di jox monsieur Jean Fam daal wax ci une bi nga xamante moo gën a fës ci réew mi quotidien muy inondation un nouveau plan décennal 2023 euh, 2033 euh, Macky fixe euh, de nouvelles règles au ministre ban jàng ngay def ci titre boobu nga xamante ni joxe nañ ko à la une de réew mi quotidien waaw comme ni nga ko baaxoo di ko baaxoo di ko kile rek di ko nemmeeku ak di ko constaté ci jamono yi nga xamee ne ci la mbënn mi yëpp daal di jóg dañu gis ne borom réew mi bi mbënn mi ñëwee ñëpp euh, ma coow li julli dafa ñëw daal di dankaafu ministre mi kon nag loo xamee ne dafay gën a confirmer li nga xamee ne moom la ñu doon euh, constaté ca commencement euh, mbënd mi que ne mbir mi lu ko soxal la te fi ñu toll moom ci boppam mu ngi leen di dànkaafo mu ngi leen di wax que ne nañu gaaw gaawaay bi mooy tax nit ñi seen problème soulagé wu donc loolu mu wax démb am conseil des ministres di ci dànkaafu ministres yi dégg nga jëwriñam yi nag ñoom ñoo dese mbir mi ndaxte ñoom bu yegsee fii ñoom la ndax moom mu ngi def li muy war a def laaj na leen ne leen jox leen ma ay plan dégg nga plan yooyu apparemment mu leen doon laaj jox leen ma ay plan ma financé kenn capable ci woon ba indil ko ci benn plan boo xamee ni dina mën a euh, dugg ci plan yi mu fi fekkoon pour que ñu daal di mën a xeex mbënd mi man jàngat boobu laa jàngat ci li nga xamee ne moom la leen doon dànkaafoo keroog dafa wax ne wax leen ma lépp lu ci nekk pour que ma mun a xam lan laa war a def keroog ba mu toogee conseil des ministre amul lu luñ ko proposé ba mu leen di waxaat ne leen gaaw leen pour que ngeen daal di proposé c'est que loolu mooy problème mu Sénégal da ngay ñëw ñu daal di la teg ngay jël say oto di di di di dusul xooka li mbay mbagg ak yu mel noonu dégg nga foo dem foog ne maa fi nekk ak yéeg yu mel noonu te bu ñu la waxee liggéey ba dégg nga doo ko mun a def encore une fois laaj du gouvernement bi moom la euh, président de la république dégg nga daal di xam ne ñii ay collaborateur am amuñu réactivité boo xamee ne ñu mën a génne askan bi ci jafe-jafe yi ñu nekk. voilà mu nekk analyse bu euh, pertinence li nga xamante ni moom mooy euh, à la une euh, de Rewmi Quotidien ci wàllu nouveau plan décennal boobu nga xamante ni moom la président Macky Sall bëgg a lancer ci atum 2023 bi ñu jëm ñu dugg ci vif du sujet bi daal di koy li nga xamante ni moom mooy coalition PDS Pastef PUR taxaw bi nga xamante ne ñu bëri ñu ko doon xaar mel ne ñi di PDS ñoom daal nañu rocceeku ci mbir mi mel ne loolu la jot nañu ko waxtaan waxtaane sax fan yee passé wax sax ndax euh, li nga xamante ne moom mooy boobu coalition ndax dina dem tey nag mu mel ne loolu confirmé wu na mu mel ne euh, fi mu nekk nii euh, daa mel ne yow dangaa ngaa am benn vision ci li nga xamante ni moom mooy politique bi parce que euh, wax nga du yomb pour pour tey mu mel ne confirmation bi commencé que mu mel ne ñoom ñëpp kenn nangu sa morom jiite la ba PDS daal dina mujj arrière ci boobu coalition nga xamante ni moom la ñu wax tey ne tey ji la ñu war a signé yooyu protocole donc yow noo gisee lu jàngate loolu ba ñu ne tey jii loolu PDS génn ci affaire bi. xam nga moor da nga nekk xale rek waaye ñun. Euh, suñu expérience ba ñu tollee nii gën a tuuti nekk ay tuut tànk nekk ak yeeg yu mel noonu ci am na ci benn émission maa ngi lay wax naan la man ba ma nekkee xale bu ma bu ñuy bu ñuy bokk di def coalition su ma nekkul président du ma bokk su ma jiituwul du ma bokk loolu mooy esprit sénégalais ñi nga xamee ne dañu am ay notion de leadership yoo xamee ne disposition la dafa am ñoo xamee ne boo ñëwee rek ñu naan ne ah way na Papa Ndiaye jiite ah na Momo jiite dégg nga kooku mooy ñi nga xamee ne dañu tayal dégg nga daan lay jox ne la faf demal mais dafa am ñoo xamee ne dégg nga doo leen mun a jiite noonu te fi ñu toll nii képp koo xamee ne ci opposition bi nga bokk am ay ambition bokkuloo ci coalition gouvernementale bi parce que boobu xam nga ne euh, coalition boobu Macky moo jiitu. donc te yow foofu nga nekk noonu duñ la woo mukk ne la kaay remplacer Macky fii nag comme amaguñu kenn koo xamee ne moom moo war a dégg nga muy coalition boo xamee ne boo demee Sonko nee na man président rek laay nekk ba dans un premier temps bañ ko waxee ne ko coalition dafa ne coalisé wu ma ak kenn ndax man président lay doon dégg nga ku mel ni Khalifa Sall dégg nga gis nga PDS nee na am na ay manœuvre yu ñu ci def ak yéeg yooyu ci taxawu Dakar amoon na ay leader politique yoo xamee ne ñëwoon nañu sax tàgguma ne dañuy dem ma ne leen boo fa demee doo fa am dara ndaxte waa jooju li nga xamee ne moom mooy eh, jikkoom moo di que ne toujours dafa bëgg jiite bëgg jiiteem boobu mu jiite nag bu la wóoree ne yow boo fa demee du ñu def eh, consensus ne la yow yaay candidat unique de l'opposition képp koo xamee ne compagnie ñoom Abdou mbay ñii bu ñu leen wóoree ne Euh, bu ñu demee ci coalition bi ñu naan coalition de choc dégg nga euh, wóor na ni du ñu nekk candidat duñ ca bokk waaw. donc mu nekk loo xamante ne fi mu nekk nii ñu bëri ñu ci poser question parce que bu dee PDS euh, Ablaye moo fa nekk mais ñëpp xam nañu ne Ablaye lim

école de Massalikul Jinaan parce que foofu dafa am benn genre duñ euh, doxoon ci diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall mais euh, bu ñu nee Massalikul Jinaan Abdoulaye Wade Macky Sall moo tax ñuy wax mais fii dafa mel ne dafa am ay kii yu bëri yoo xamante ne ñu ne boole woon ku ci mel ne Pape Diop ku ci mel ne euh, ñenn ñu boolewaat leen ngir ñu waat pour pour jéem a relancer waat li nga xamante ne mooy yenn relation politique yi amoon mais ñu gis ne PDS nanguwul ñëw bokk ci boobule mbir ndax yow da nga jàpp ne dafa amatul légitimité bi nga xamante ni moom lañ moom la ñuy xaar ci kanamu Sénégalais wala boog euh, problème de de de de système bi nga xamante ni moom moom lañ moom la kii doon wax Ousmane Sonko moo waral euh, ñeenti kii mënuñoo ànd parce que ku si nekk boo ko sa moom ni nga defee politique. waaw xam nga euh, li nga xamee ne moom laa la mën a wax rek ndax wax nga ko ci titre bi léegi daal di ne la protocole de Massalikul Jinaan ah dafa nekk loo xamee ne depuis un certain temps depuis loolu am ba tey. ñun ñu ngi toog di wax ne euh, Abdoulaye wadd tant que euh, wonewul boppam euh, toujours dañuy yaakaar ne la mu waxante woon ak Macky Sall du dëñ ay day mime ay stratégie la ay stratégie politique yoo xamee ne la ab Ablaye Wade moom lañ yaakaar ne parce que Senghor tuddee woon na ko fi ñomboor ñomboor da ngay muus donc noonu ngay muuse te politique nag kenn wax ne euh, jamais fontaine jeune ne boirai point de ton nu en politique loolu amul mooy li nga xamee ne rek moom la ñuy euh, dellu si di la wax ne la Sonko muy Sonko muy euh, ki nga xamee ne mooy Khalifa Sall muy ki nga xamee ne mooy Pape Diop Pape Diop boo ko tourné daf la naan man jiite réew mi moom ma tax a jóg ñoom dem nañu ba nga xamee ne nekkoon na président Sénat ay kii yu mel noonu ñoom foog nañ ne waratuñu to boo leen di nommé ministre sax ñu ne la bëgguma ministre président laa bëggu alors naka nga mën a toogee ci benn coalition boo xamee ne yaa fukki candidat à la présidence de la république nga daal di bëgg a fexe ba def coalition boo xamee ne du am faay alors bu ñu xamee ne euh, wadd doomam lay wut Pape Diop moom day wut dégg nga ki nga xamee ne mooy Khalifa Sall moom dafay wut donc te yooyu yëpp ñu nëbbee ko rek que ne ay amnistie moo nekkoon ci ñoom da nga mënatuñu candidat mënuñu kii parce que bu ñu demee ba nga xamee ne mbir mi mu ngi bugg a cóol rek li wóor moo di que ne dañuy jóg daal di ne amnistier nañ leen bàyyi effacé nañ ko ñu jël kii wala passante pouvoir bi daal di wala daggalante les gato mais sénégalais yi ils sont pas dupes gisuloo affaire politique nii yëngalu leen sax li leen yëngal mooy Euh, tuuti Covid bi sax Covid bi sax yëngalu leen mbënd mi moo leen gën a yëngal. te mbënd mi lim leen ci yëngal tuuti dafa nekk ci li nga xame ne rek nga xëy suba gis sa biir saal ay ndox mu bare tiim la ngay nelaw ci biir ndox mi loolu mosul euh, c'est incommodant nekkul loo xamee ne lu ñu euh, farataal la wala loo xamee ne di nga ci nekk à l'aise plus aussi promiscuité bi ak problème d'hygiène yi salubrité yi nga xamee ni yooyu yëpp mu ngi ci bokk. dégg nga loolu la ñu gën a tiit que Covid bi bien que ñu ngi naan Covid bi sax ci nombre de morts yi dafa gën a yokku nombre de contamination yi dafa gën a yokku nombre yi nga xamee ne ñu ngi kii dafa gën a yokku donc gestion Covid bi moo am ay failles wax naa la fii ne la ci wàllu Covid bi ak ci wàllu coalition yi nga xamee ne ñoo nekk mënuloo di di toppatoo Covid bi te jëluloo ay scientifique teg leen. scientifique yooyu ngay jël seen avis ba pare nga bëgg a daal di toog indi li nga xamee ne moo di ay local dégg nga nit ñi loolu seen euh, survie ak euh, li leen di génne ci jafe-jafe yi moo leen gën a soxal que lii ñu leen indil mu nekk ay affaire euh, élection ay affaire Macky Sall bokk ceeg Macky Sall taxaw na ceeg yooyu taxu leen di jóg mais man est-ce que am nga même inspiration bi comme man parce que instant bi man ci je lis encore euh, si euh, Rewmi Quotidien ñu ne que ce titre du protocole de Massalikul Jinaan euh, day mel si diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall et y a Macky benn benn mot nit ñi bàyyi si xel boobu léegi mu ne njur mburoog soow neex na waaye il faut ñu andi gloria instant yi mburoog soow soow si boobu mooy instant bi il était malade instant yi il était retour Sénégal mi nekkoon Paris feebar boobu ñëpp seen xel mu ngi nekk ne Goloya moom ki nga xamante ni mooy Karim Wade ba moo nekk ki ñu war a lijjanti ngir mu ñëw euh, bu bu ñëwee tout sa que tu cherches c'est de de fragiliser li nga xamante ni moom mooy opposition bi pour may doole ki nga xamante ni moom mooy euh, Karim Wade bu ñëwee rek Macky Sall day day pousse continuer ko famille libérale bi continuer yor réew mi comme ni ñu defoon diggante Abdou Diouf ak euh, kii di Senghor ba ñu defee 40 ans de pouvoir avec le parti socialiste. loolu loolu mun na nekk ci seen xel waaye ñu appliquer ko. dafay fekk les sénégalais neutres nekk ñu majorité bi ndaxte les sénégalais neutres yi nga xamee ne ñu ngi xaal les stratégies politique les rouages politiques yi nga xamee ne ñoom ñu ngi koy bëgg a fexe ndax xam nga ko mel ni sa sec je me demande bien est-ce que euh, waxu feebar boobu ñuy wax noonu est-ce que euh, kii na ko dégg nga est-ce que dëgg la ndaxte euh, nekk na ko xamee ne làmb nañ ko fu nekk waaye sénégalais yi ci boppam ñoom ñoo ko weddi euh, daal di euh, teg ko à l'écart gis nga ba mu duggee euh, num ci biir conseil économique et social c'est sur la pointe des pieds waxatul gisatoo ko dafa effacé wu dégg nga ay ah, benn ministre am ngay séen muy taxaw dégg nga di rey boppam di kii yooyu comme ni mu ko doon defee rek ba nga xamee ne dafa nekkoon président département conseil départemental mais euh, kii am boobu le ministre am boobu moo daan taxaw Yankhoba Diattara di wax fii di dugg fii di génn fii dégg nga mu ngi mel ni rek mu ngi mel ni rek xar boo reen di ba pare ñuy nekk di muy wéqu di xaar mu sedd loolu la ñu war a jàppee li nga xamee ne moo di coalition euh, euh, Idrissa Seck ak Macky ak euh, ki nga xamee ne moo di Wade nag bu gisee opportunité boo xamee ne comme defoon na protocole bi te protocole bi dafa am benn loxo boo xamee ne ñëpp dañ ko naw bu nekk ca suuf moo ko sutandru moo di xalif général des Mourides kon nag moo taxit war nañu rek dégg nga daal di ci màndu daal di def rek li nga xamee ne rek moo di wait and see këpp suñu bët di xool ba xam fan la wànnent di mujjee ki bëtam fan lay mujjee bëtam xanaa uti mu def ci bët rek comme ni ko ñoom maag defee rek euh, donc ñu dugg ci beneen euh, sujet moom mooy euh, li nga xamante ni moom moo jëm ci prix yi jamono ji ak conseil bi nga xamante ni amoon na ci jamono ji prix yi yokk à chaque fois coow lu bëri ñu naan commerçant yi la ñuy du commerçant yi donc mu dem ba fa fi mu nekk nii président woote woon benn conseil national ba ministre bi nga xam mooy wàllu commerce ak commerçant yi ñu waxtaan ji ba nee nañ jël nañ ay mesures ngir tey wàññi yenn taxes ci yenn produits yi ngir prix mën a mën a wàññeeku donc yow ban gis-gis nga am ci euh, jamono jii nga xamante ni ñi ngi ñu ngi dund wàllu mbas ñi ngi dund wàllu inondation dëkk bi metti euh, prix yu yokku euh, te am ñu andiwaat VAR parce que VAR ni ngi ko si VAR léegi te Macky Sall waxoon ne gouvernement moom mooy tey jël xaal jël taxi yokk ko ngir mën a am xaalis bu ko bu ko bu ko neexee prix yi wàññeeku Euh, parce que euh, gouvernement mën na bay jëndee avion mën na bay jënd ay bus mën na bay jënd ay oto pour pour ministre yeeg yooyu donc tous tous ces taxes là yi nga xamante ni euh, bu ko dindee dund gi dina mën a mën yokk donc yow ba nga gisee coow lu bëri ñu ñu wote nañ conseil national est ce que nekkul c' est juste ñu ñu fekk jaan bi dem ñuy toppaat ci waxtaan gi di dóor li ñuy wax rek saupoudrage gëlëmal nit ñi ndaxte avion bu bees Euh, lañ ca investir soixante milliards ak poussière ak leneen ak leneen ak leneen. ak oto ak oto oto un milliard. yooyu yëpp mun na financer li nga xamee ne moo di subvention yi nga xame ne ñoo waroon a soutenir pour bloquer prix yi par rapport ak situation économique ak euh, sanitaire bi nga xamee ni moom la ñuy dund. Mm-hmm. li nga wax jaan buy watatu mu ngi mel ni soit ñoo ko tey. wala dañ doo ko fàttaliku à la dernière minute mais ce que je puis dire ci biir affaire bi moo di que ni ñu bàyyi di jël sénégalais yi pour de marionnettes ñoom ñi nga xamee ne ñu ngi féete ci fu neex fii mu ngi neex ci ñoom ba tey yow ak man tey jii ci suba gis nga mburu mi ma indi woon balaataa may ndekki donc nga daal ko dagg ba pare ne ku moom kii dégg nga suma mburu mi ñoo ko bokk tey ci suba donc ce qui fait que dégg nga li nga sant Fall sax moo tax si miwuma la <laughs> waaw di wax rek ni <laughs> euh, lii nga xamee ne moom la euh, gouvernement bi di def ne dina wàññi prix yi ci progr processus boo xamee ne ak pro euh, période boo xamee ne période de tension sociale avérée pointue lii nga xamee ne moom la ñu wax ne ñu ngi dellu siwaat pour xoolaat prix yi kooku pour désamorcer tension bi la léegi nag diggante bañ koy désamorcer ba ñuy annoncé loolu ak la ñu ñuy appliqué ba ne pénurie dootul amati ak yéeg yu mel noonu dama la ñuy waxati rek moom laay dellu si daal dina la nañu xool ba xam fu wànnent di mu jékki bëtam dégg nga dans le meilleurs délais mm. bii dans les meilleurs bii lu mënul a xaar la mm. ñu ngi toog nag di xaar approvisionnement marché bi ñu ngi xaar li nga xamee ne mooy prix wàññeeku donc yooyu yëpp ci période de pandémie période de crise boo xamee ne rek euh, toujours dégg nga gouvernement bi briller dégg nga ci déedéet dama juum je recommence mais mu nekk loo xamante ne fi mu nekk nii sénégalais yi am ñoo xamante ne leen jaaxal moom mooy nan la prix yi mën yokkee ci commerçant yi te boo demee si grande surface yi même prix la ñuy prix yokkul wàññi wàññiwuñu parce que ñoom dañuy topp li nga xamante ni moom les prix homologués euh, bu ñu prendre euh, euh, exemple bi nga xamante ni moo gën a siiw Sénégal muy Auchan ñoom ñi ngi jaay prix yi normalement te Sénégal yi ñu ngi fay dem di jënd ji ils ont le même constat manqué wu fa yokkul mais commerçant yi Sénégal ñoom bëgg na suukar manqué na yokk suukar bi ba ba cent francs jamono jii prix yëpp bëgg a yokk alors que yenn grande surface ñoom ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñuy fu ñuy jëlee ji li nga xamante ne moom mooy euh, produit yi mais ñoom ñoo ñoom ñooy yokk à chaque fois am na ñu ne état bi moom moo nekk ci moo nekk ci ginnaaw moom mooy moom mooy dooleel euh, commerçant yi ba sax nee nañ sax taxes yi mu wàññi ni sax nekkul euh, sénégalais yi lay lay jàppale mais juste commerçant yi lay gën a mën a may doole pour juste dagaan seen baat ci élection élection yi ñu jëm ndax yow da ngay partagé même kii boobu ne état bi lépp loo xamante ne am na ci wàllu prix yi xam na ko c'est juste que moom moom moo ci bëggul def dara ngir commerçant yi mën na të tënku ci li nga xamante ni moom la code yu marché yi marché yi teg. Mor euh, dinaa pour tontu la ci foofu ndaxte li nga xamee ne mooy li moo di que ni euh, supermarché yi dañu. am ay euh, normes yoo xamee ne moom lañ leen tegal te ñun ba ñuy supermarché yi di implanté wu amul woon règle du jeu dans l'approvisionnement du marché intérieur euh, jaay beeg jënd bi dégg nga déplacement produit yeeg yéeg yu mel noonu dañ la doon wax naan la waaw non c'était ay infrastructure ñoo taxoon prix yi di cher parce que du mun a jóge Matam ñëw Dakar du mun a approvisionner marché bi ak ainsi de suite ñuy spéculer ça fait le bonheur de certaines personnes certaines personnes yooyu bi Auchan ñëwee dégg nga ñoo sol seen grand boubou ak seen caaya bugg ubbi sax supermarché mais ba ñu ubbee supermarché da nga gis ne produit boo fekk Auchan nga dem ci koo xamee ne particulier la wala commerçant la bu bugg a ubbi supérette supermarché da ngay gis que ne prix ba dafay doubler jógal nga dem ci région yi da dugg Auchan fekk fa benn paquetu suukar buy jar sept cent quatre-vingt-dix francs nga daal di dem euh, ci euh, supermarché yi nekk ci station yi nga fekk fa euh, kii ba di fa jar ay huit cent francs cent francs des yoo xamee ne doo ko mun a expliquer da ngay gis benn xaal ñu béy ko fii Sénégal nga ñëw waaje ne la à ah, trois mille xaalu trois mille fan nga koy mën a lekkee yow fii ci Sénégal xaalu trois mille nga dem jël benn pomme ñu ne la deux cent cinquante pomme bi mu nga jógee ba Maroc wala orange ba jógee ba Maroc deux cent donc di dafa am ay euh, dichotomie bu nekk ci diggante prix yi ak façon prix yi nga xamee ne ñoom ñoo gën a kii li ñuy béy fii toujours dafay nekk loo xamee ni daf ñuy dafay nekk difficile d'accès dégg nga si bien que dañ daan wax bi ñuy def ay euh, euh, di teg ay alimentation di remplacer naar yi gaa ñi dañ doon wax sénégalais yi di leen wax naan leen gis nga dafa am produit yoo xamee ne da nga koy teg pour ñu mu mun a jaral sa yenn produit yi par exemple boo jëlee almet wala nga jël cigarette yooyu amul bénéfice mais almet bi ñuy dugg si di ko jënd si moom mooy mën a tax ñu daal di fa gis benn potu euh, benn potu euh, sardine potu meew pour mun ko jënd donc bénéfice bi dégg nga dafa nekk bénéfice boo xamee ne da ngay jóg di ko dajale di ko dajale di ko dajale mais sénégalais dafa bëgg ne salaamaaleykum rek. daal di nekk milliardaire bi ñuy wax milliardaire milliardaire loolu moo tax ñoom ci seen bopp dégg nga ñuy nekk di yuuxu au voleur au voleur dégg nga le gouvernement machin des trucs comme ça mais boo xoolee rek c'est sa intervention léegi yaa ngi gis que ni ñaari voie nga daal di tracé droit boo xamee ne ñii dañ leen indi dégg nga jàngal leen lan mooy li nga xamee ne moo di ay normes règles du jeu ñii ñu daal di toog saa ñu leen ne aligné wu leen fii ñu daal di ne déedéet lii daal moom du ko fi amee dégg nga di yuuxu au voleur dégg nga daal di jékki-jékki pratiquer lu leen neex gis nga da nga daan dem ci biir magasin yi fan yi ñu ne yokk nañ kii rek nga ñëw ci magasin doo fa fekk pepp suukar nga dem ci Auchan yi fekk ñu nga fa taxaw ak suukar sang fa bare dégg nga te gën a wàññeeku de léeg sax da ngay gis que ni ñoom dañ amee woon stock boo xamee ne amul benn Auchan boo dem fekk suukar ba jeex. alors c'est que gis nga euh, gaa ñi nañ bàyyi caaxaan bi te jóg liggéey gis nga marché marché de consommation dafay am règle du jeu bi moo di ku ci nekk da am ay euh, fooy commencer acheteur bi dafa am comportement. ak euh, kiy jënd ak kiy con kiy consommé ak kiy jaay dafa am règle bu leen fay kii ba nga xamee ne mooy règle ak concurrence beeg yépp dégg nga fi senegal lu waay def lu waay neex def mm. loolu mooy li nga xame ne kenn du leen boo leen buggee topp sax pour solidarité ñoom doo xam sax fan nga war a kii parce que da ngay da ngay nangu li <laughs> kële bañ di loolu moom mooy li nga xamee ne ma jël parce que ma di la joxe ci benn benn affaire buy war a am nii mooy crise du transport bi nga xamee ne gaa ñaa ngi nekk nag di di di di yëngal ak di yéeg yu mel noonu révolution bi bëgg andi pour changer njaga njaay yeeg yéeg yu mel noonu ak pour dugal carte grise yeeg yéeg yooyu ba nga xamee ne benn grève sonal encore sur le plan social bu nar a sur le plan social ba grève yooyu waroon na ñu mën a toog dégg nga di bàyyi politique de laisser pourrir c'est ce qu'il faut laisser par par kii gis nga fi mu nekk nii déggatoo déggatoo Macky Sall di wax ci affaire transport bi déggatoo ko mu wax ci déggatoo ko muy wax de sax euh, démb tuddaale na balbutier na li nga xamee ne mooy xëyum xale yi ak xëy mi pas ndaw yi mais xëy mi ci boppam lañ war a ñu waruñu régler xëyu ndaw yi parce que ndaw dafa am ñoo xamee ne ñu ngi perte seen emploi war nañu am système de reconversion loo xamee ne dinañu mun a def leneen dugg ci leneen nekk ci leneen waaye bu ñu waxee ñu ne xëyu ndaw yi xëyu ndaw yi mais xëyu ndaw yi euh, couvrirul législation travail bi parce que dañu am mon monde du travail le monde du travail dafa am ay charte yoo xamee ne boo buggee nag euh, daal di émerger sur le plan national et internationale li nga norme yi nga xamee ne moom la humanité bi nit ñi di teg ci réew ñi ak yi dégg nga mu bañ a am tubaab yi ay tubaab lañ ñun ay africain lañ on di gérer euh, un pays comme niñ koy gérer su l'arbre à palabre loolu mooy li nga xamee ne mooy feebaru Sénégal en matière de gestion administrative. voilà donc je pense que euh, dégg ngeen li nga xamante ni euh, monsieur Fall wax na ko moom moom damay wax ne c'est c'est le de réew mi. donc dañuy dugg ci beneen sujet muy sport bu Sénégal euh, démb am na ñaari ndam yoo xamante ne suñu ay gaynde am nañ ko gaynde yu football yi ak gaynde yi nga xamante ni ñoo nekk ci basket bi ndax mën nañoo joxe benn analyse positive ci li nga xamante ni moom mooy prestation yi nga xamante gis nañ ko démb ci ñaari compétition yu mag yooyu benn bi afro basket la benn bi ci wàllu éliminatoire coupe am nañu Sénégal dóor na mais football bi moom ça reste à désirer. comme ni nga ko waxee rek am na ñaari ndam félicitation. ci ñaari boor yëpp. waaye la nga xamee ne feebar ba nga xamee ne moo daan jàpp sénégalais yi bu équipe di jongante wala discipline bi jongante moo di que rek cardiaque s'abstenir problème de santé Euh, du cœur bul ca bokk ndaxte la nga xamee ne moo fi nekkoon ay années nga xame ne saa yu ñu jàppee euh, benn équipe ñu ne teel a ñuy rey équipe boobu keroog jooju équipe ba ca la ñuy ca ñuy lajj équipe boobu ca la ñuy toroxal ñoom togale yi démb ba ñuy ñëw seen euh, dimanche la ñu woo féticheurs ya nekk ca réew ma yépp ak église ya nekk ca réew ma yépp ak jàkka ya nekk ci réew ma yëpp ñu wàcce kaamil ñaan pour dóor Sénégal ba ñu defee loolu déjà ñëw di ko wax rek déjà wàññi na lu bare ci li nga xame ne rek moo doon équipe Sénégal bi mais dafa am une chose boo xamee ni il faut que ñu bañ ko perdre de vue moo di que ni gis nga euh, équipe bu Sénégal bi problème am li ko bi mu am mooy contenu xoolal équipe bu basket bi def na un sans faute mais ba muy def sans faute faay yi nga xamee ne moom la doon accumuler ci premier match bi deuxième match bi troisième match bi démb dafa jékki-jékki rek yëpp feeñandoo ñu daal di toog daal di gis ne ci niveau de la relance au niveau de la gestion wu euh, les paniers. Mm-hmm. dégg nga toujours dafa amoon ay période de flottement yoo xamee ne bu fekkoon ne suñu statut sur le plan international wàññiwuloon euh, euh, psychologiquement euh, les les Angolais ce qui est sur c'est que c'est un match boo xamee ne tout es prêt ñu perdre ko mm-hmm. ñu ngi xaar samedi nag ba ba ñëw ak Côte d'Ivoire mm-hmm. mais Côte d'Ivoire nag ne ñu xam ne am na benn tubaab bu ci nekk boo xamee ne moom dafay taxaw ca beneen camp ba sànni mu dugg waaw trois points yi moom da ay trois points yi par trois points lay dugal léegi nag nee nañu coach bi nee na dina toog xoolaat match bi ba xam faay bi waaye li ci li wóor moo digga ne la ñu daloon 2002 dem ba nga xamee ne ñu ngi yaakaar ne tey léegi waalo gën a ay ñu daal di ñëw indi suñu lépp li nga xamee ne moo doon sutura ba ñu yore woon yëpp feeñ ci terrain bi waaye yàlla mi dara tewul dégg nga dañuy dellu di ko sant ba nga xamee ne may nañu ndam kon nag félicitation ci ñi nga xamee ne ñoom ñooy euh, kii bi ñooy euh, équipe basket bi euh, félicité mm-hmm. équipe bu football bi di wax rek ni euh, peut mieux faire. peut faire donc bu fekkoon essai bi da may note benn note note sur 20 wala sur 10 ci. Euh, football bi nga xamante ni presque ci deuxième mi-temps bi ci lañ xaw a football tuuti parce que football bi commencement bi doxul woon xaw a tuba dugal deux buts euh, ci équipe de bi a tolloo 74 ci dernière euh, une minute am benn 5 points bu tax mu gagné jox note nekk nii prestation yooyu sur une de de de 10 wala bokk ko koy jox. équipe bu football bi. dinaa ko may cinq cinquante ndaxte. cinq euh, cinquante euh, cest euh, cinq dix ou cinq. cinq sur dix. cinq sur dix. cinq sur dix. mention passable. pourquoi parce que il faut que nga xam ne équipe bu football bi amoon na monopole bal bi mm-hmm. waaye finition ba xamuñu woon lan la ñuy def bal bi. est-ce mm-hmm. que lépp lépp ko reposé ko Sadio non c'est-à-dire que. ñoom ci seen bopp di nga leen gis ñu nekk ci rond centrale bi di passante ay base passante bal waaye bu ñu waree dem ca camp ba fële da ngay mujj gi dañuy dellu si sax dégg nga di di seeti ji suñu góol bi pour que mu jàppale leen ci mën nañu wax ne tactique bi nga xamee ni moom la togolo yi defoon tactique boobu c'était pour xëcc leen stratégiquement mais am na lenn loo xamee ne maa ngi ci attirer attention wu sénégalais yëpp gis nga suñu góol bi dimanche bi nga xamee ne mu ngi doon football Chelsea ak euh, kan la doon Liverpool. dafa jékki-jékki di dégager rek glisser daanu. contre Tunisie dafa doon kii ba ci di di di di bugg téye bal bi rek bal ba ko mu ne carax dem démb itam gisati nga noonu muy kii noonu leen nag léegi tey mu taal suñu caax yi ak yooyu muy def noonu préparé leen. léegi mu caa suñu taal suñu caax yi mm-hmm. ci yooyu muy def noonu mm-hmm. te loolu muy def noonu du toujours la koy def waaye du tou Europe du toujours la koy def man benn yoon la gis muy football Europe daal di di dóor daal di glissé gazon bi kii ko mu daal di glissé daanu samedi bu fekkee ne déglu seetaan nga match su Chelsea bi def na fa loolu daal di ko defaat ci match bi di dóor bal bi mu dal ci tànk joueur bi daal di génn fële benn bi moo di que nii ci Sénégal Tunisie dañ ko ne dóor ko bal bi mu dem ba di ko bëgg a bloqué bal bi jaar ci suufu tànk bi mu naa nii di jaxasoo ak yéegu mel noonu donc il faudrait que ñu daal di dellu si waat mettre du sérieux daal di euh, commencer di jox respect suñu adversaires yi adversaire boo mun a dóor dóor ko cinq toog soog a toog di ko won ne maa la mën waaye boo ñëwee bugga a wone ay classe boo ñëwee bugga wone kii entraîneur bi itam dégg nga li tax muy dugal yenn kii bu defee erreur ba pare daal dinaa visionné pour xoolaat jéema a ñu ngay dem nag Congo. parce que note boo ko nag bés bu fa demee. Mm-hmm. nañu fexe ba nga xamee ne du ñu fa def lii ñu fa def nii buñ ko defee dinañu jël carton bu bare. Mm-hmm. basket bi nag li nga xamee ne moom laa leen di jox comme euh, kii man dinaa leen yóbbu ba ñu yegg ci 7. 7 sur 10. 7 sur 10. macha assez bien. assez bien. ndaxte am na lacune yi nga xamee ne par benn benn lañ ko doon gis ca match yi nga xamee ne de yi nga xamee ne que dafa jékki-jékki rek daal di jóorondoo ci éliminat match couperé match yi nga xamee ne mooy bu euh, buñ la dóoree nga toog voilà donc moo am lu am important wax na ko ci basket bi euh, ci match bi nga xamante ne ci leen jëm contre Côte d'Ivoire donc wax na ko sànq am na seen benn joueur bu exceptionnel bu excellent boo xamante ni euh, na ci équipe boobu boo ni il est toujours donc il est fort en lancer mooy ay 3 points. j'aurais aimé nga xamante euh, nekk fii je pense que moom mënoon nañoo mën a au moins jàppale côté bu moom mooy bal yooyu nga xamante ne ñu ngi dugal ci 3 points yi ñu jeexalee ak benn sujet bu ndaw rapidement ci li nga xamante ni moom mooy li. xew léegi ci dëkk bi léegi ay ndaw kii rey na euh, papaam kii rey na rey na yaayam rey na liyam na lii bi mujj moom bi am Touba ci koo xamante ni dafa rey papaam ak yaayam ci ay détails yu ñàkk sut ñàkk euh, fayda donc yow euh, la nga gis ne moom moo waral mbir yooyu ndax day jàpp ne yar yarin yi la wala boog xale yi ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo xamante loolu dafa am li ñuy wax benn implication loolu extérieur loo xamante ni bokkul ci ñun lu mel ne utilisation drogue yi parce que euh, yàmbaay yi donc wala bokk ay affaire rab loo xamante ni si euh, affaire spirituelle la ba dugg nit ñi waral yenn dérive di am yenn massacre di am yoo xamante ni euh, on pas benn explication lañ ko war a mën a pour nga jox ko explication. Mm-hmm. dafay xaw a dafay xaw a jafe ndaxte causes yi dafa bare te causes yi. bi nga xamee ne mooy tax doxe fii bi nga xamee ne moo gën a law ci euh, cause yi nga xamee ne parce que ñun bu ñu gisul lu ñu xam rek dañ naan rab la bu ñu bëggee génn ci analyse ba rek dañ naan rab la rek eh, frenkulaayu ak li nga xamee ne moo di mbirum éducation bi ak li nga xamee ne moo di mbirum politique yi nga xamee ne moo war a jox nit ñi euh, espoir boo xamee ne nit ki bu xëyee suba dina am ne xëy na dina mën a dagg ay buumu gàcce mu am espoir xalaat ne dina am ci àddina mais boo nekkee ci benn société boo xamee ne amul benn alternative da ngay dem ba nga xamee ne da nga découragé contrat de confiance ak ñi nga xamee ne ñoom ñoo ñuy jiite amatul mais da ngay gis ay comportement yoo xamee ne yu bizarre yoo xamee ne dafay ñëw ci ndaw yi wala mu ñëw ci askan bi. donc y frustration yooyu ngay gis noonu c'est absence de politique sociale de politique sociale d'insertion dégg nga boo xamee ne mooy mën a permettre nit ki am espoir l'espoir fait vivre wax naa la ko ci suñu yeneen émission yi. defati aussi ci wàllu nag li nga xamee ne moom moo ñu waroon a euh, yar dégg nga muy euh, côté religieux bi côté religieux bi. dafa nekk ne buñ lay euh, boo amee ay ñoo xamee ne yaakaar nga leen dégg nga ci diine bi la ñuy nekk di expliquer ak communication bi diine bi waroon a def dafa doyul ndaxte phénomène bii nga wax ni gis nga répression bi nga xamee ne nguur gi war na ko def dafa bokk ci li nga xamee ne en moom la ñuy tuddee violence sur ascendant violence sur ascendant nag dégg ak menace ak euh, li nga xamee ne moo di rey ko wala menace de mort loolu loi bi am na ay euh, disposition yoo xamee ne euh, bu yeggee ca nguur ga ñu xam liñ koy def waaye par benn benn la ndaxte da ngay gis toujours que sa yaay bu fekkee ni yaa ngi nekk ci yenn comportement yi da di nëbbal nëbbal yooyu bokk na ci li nga xamee ne mooy indi situation yooyu mm. rax ci dolli li nga xame ne moom la ci diine bi waroon a indi ci li nga xamee ne moo di yar ba ñu war a am ak nañ war a comporter woo ci biir suñu biir société ak ni nga xamee ni noonu lañ waroon a def loolu dafa nekk lu xaw a soxe lu xaw a rafle ci li nga xame ne rek moom lañ ci jamono bi moom ngay wax ni boole aussi que ni am na beneen phénomène boo xamee ne moo di xaru bu njëkk ba dañ lay euh, tàggat diine bi daf lay tàggat diine l'islam diine chrétienne dañ lay wax ne la ñoom ñëpp kenn reconnaître ci li nga xamee ne moo di euh, xaru waaye gis nga ne fi ñu toll nii eh, nekk nañu ci situation yoo xamee ne eh, gis nga xale bu jigéen boobu nga xamee ne dafa ëmboon ëmb huit mois dégg nga dem ba nga xamee ne dara desatul ci li nga xamee ne moom mooy eh, mu accouché mu daal di rey boppam dégg nga te ba muy def affaire bi dégg nga xëy na dañ ko violé woon wala xëy na du woon coobareem wala kakk ko def wax na ko lam ko war a wax mu daal di ne ko du man wala du ko def wala duma ko kii daal di wuññi gàcceeb boo xamee ne nag da ngay dem bay nar a lëjal nit ñi nga bañ a daal di dugg ci li nga xamee ne rek moo di ay eh, loo xamee ne ëllëg bu feeñee dañ lay eh, kii gis nga bu njëkk ba soo ëmbee te say parents am alal walla te say parent am les moyens dañuy yoot ndànk daal di la fayal nga daal di dem daal di kii ñu dindi affaire ba wala ñu jël la yóbbu la Tambacounda am na foofa Maodo Malick mu nga fa dëkk sama frair la ma daal di ne ko ma xale bi mu ngi foofu mu daal di fa nekk ba mucc mu dellu siwaat dégg nga te dafa am yenn yoo xamee ne sanction sociale yoo xamee ne euh, ñu bare bare dund nañ loolu ci suñu tangu maam yaak yéeg yu mel noonu combien de gens nga gis ak combien de personnes yoo xamee ne dañu dund juddu hors mariage te terewul dégg nga seen yaay a ngi dund defaraat na seen vie seen euh, kile nu mu tuddati euh, seen doom yi ñu ngi fi nekk di tekki dara di def ba dag boobu gàccee géeg yu mel noonu ainsi de suite mais c'est une question d'éducation et de société. nga tàggatoo waale beneen parce que. di wax rek ni. Euh, tey jii euh, maa ngi dellu nag euh, di gërëm suñu techniciens yi Maodo Malick ak moomu dégg nga di wax rek suñu xarit ak suñu àndandoo suñu liggéeykat suñu confrère Papa Ndiaye di ko wax rek ne ñu ngi lay féliciter dégg nga ci li nga xamee ne rek moo di sa événement boobu nga xamee ne ca Touba dégg di wax rek ni bu dara sedd nag. dégg nga booy ñibbisi na nga ànd ak moom dégg nga comme ça ñu daal di euh, fexe ba daal di la bégal fii ci réew mi euh, TV voilà donc di la jaajëfal ci euh, loolu nga xamante ni yëpp kii nañ ko euh, ci émission bi euh, ponk yu bëri bëri bëri j'aurais aimé nag ci li nga xamante ni moom moo jëm ci li nga xamante moo am léegi ci jeunes yi au moins que l' état puisse prendre des ko ci ndaw ñi soit qu'on met des émissions yoo xamante ni ce sont des des psychologues wala ñoo xamante ni dañuy waxtaan nañu ci côté mental pour yenn ñi mën dañ tentative de de yoo xam mooy suicide yi au moins nit ñi gën a mën a dalal xel nit ñi des émissions yoo xamante ni peut-être va tenter avec euh, monsieur Jean Fall essayer de de des émissions yoo xamante ni on parle de thèmes psychologiques pour mën a gën a mën a ñaax nit ñu bàyyi yenn yu bëri bëri bëri di ci bàyyi xel donc di jaajëfal ñëpp di profiter aussi euh, di jaalewaat euh, sama yi ki nga xamante ni mooy di ko jaale ki nga xamante ni mooy Serigne di béggee ñu ngi nekk fi nga xamante ni moom mooy Touba di leen jaajëfal donc di leen jox semaine na ci seen beneen numéro bu seen émission actu réew mi kon ni nga defee saa su nekk rek di jaajëfal sama chroniqueur di jaajëfal aussi sama technicien ak sama troisième technicien bi nga xamante ne jamono ji euh, daanaka mi ngi nekk ci ci ci ci ajina ju neex waaye di ko ñaanal baax a baax rek xéwal yu bëree bëri bëri bari aussi euh, ak képp koo xamante ne yaa ngi. tey tey lay deseeroo pomme. tey eh, pomme lay comme ni nga ko waxee pomme lay dessert wax ay raisin yooyu. donc voilà donc euh, kon euh, jaa jëf kon euh, leen jox li daje la semaine prochaine merci à vous et à tous les internautes yi nga xam ne yéen a ngi suivre jërë ngeen jëf.